sant di leen gërëm di leen santal yàlla yéen ñëpp fu nekk yàlla na yàlla suñu Tuubaa def ngeen jëf ji lan la def ci yow en tant que waajur kii def am mag moo tudd ko rakkam la moo ci bokk moo doon rakkam ma am beneen doom moo ci bokk Abu Bakar ma am beneen doom moo ci bokk Xadija ma am beneen doom moo ci bokk Alimatu ma am beneen doom moo ci bokk lan la yoon. ana lim maam benn doom bu tudd ko Bilal. ñu ngi fi tax. maam benn doom bu tudd ko Ousmane. doom yëpp yonent bi lañu. ndeysaan. ñoom yëpp. juddu yonent bi la. ñu li ma xam yëpp ñu xam nekk naa Amérique fukki at juróom fukki at ak ñeneen. ma yor benn bus ma jënd benn bus tudde ko Cheikh Amadou Bamba wër Amérique ba mu jeex wër Canada ba mu jeex Cheikh Amadou Bamba kaamil bi gaynde gi di jox Cheikh Rafal këll bi yet bi góor ak Cheikh Fall def ko ba mu jeex juróom fukki at ak ñeent ñii bu ñu nekkoon nii xamatuñu lu ñu fu ñu dem tuwaar fukki at macha allah bu kii rek du rakkam yeeg fu ñu dem tuwaar fukki at fu ma dem ñooy yëngu du ma dara sama kër gi sama kër gi sama famille ñoo ko yor du ma jaaxle dara ma xam ne li ma ñaan yàlla suñu tubaab yàlla may na ma yaayam dem na fukki at ak juróom-ñaar kii xam na xale bu fàcc xam dañu wàcc alxuraan ba am seen daaray bopp di jàng xale yi fi nekk léegi xaar ci fi nga dégg leen dañu xam alxuraan bu baax a baax a baax a baax te it gannaaw yooyu ma am doom Mbaye Diagne lépp li fi organisé moo ko kenn la dégg nga donc yàlla moo defal lii Amérique la même chose Ngoma Ndaw fu kii war a nekk dama toppatoo Ngomaan fa dama ma mel ni maa ngi ma nekk ak man sant naa suñu ci sant la yéen itam ndax samay doom ngeen tey ci ñooñu ñëpp nga daal di lim hmm. moom la yàlla def moo ci siiw mu nekk euh, nit xam ne moom moo ci siiw ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp nga daal di bokk njabootee mu daal di def li nga xam ne nag moom moo di construire euh, jumaa ci a fonk lan bi rek ki siiw bokkul nag ñëpp siiw d'accord waaye ñun dañu nekk xam ne bu ñu dudd mm. moom rek di gis damay ñaan yàlla am gudd fan ba fi nekk moom ngeen di gis ñaan leen ko yàlla moom te mu gudd fan moom mu gudd fan bu ngeen gisul dañ gis rakkam nag ndax yàlla sama papa li ñaan la nekk musu bu tubaab mu ne bu jàng ko ci àdduna di jàng ko denc boo demee li jàng dañ ko defaree dégg nga donc ñun l'islam mooy suñu suñu suñu ci njëkk ci àdduna dëgg la waaw dëgg la loolu la dem